a fay leen ma asalaamaaleykum askanub département de Pikine asalaamaaleykum waa Jidda Caaray kaw waaw maa ngi nuyu ku nekk turam nuyu ku nekk santam am tey l'honneur le plaisir ma dalal fii ci Jidda Caaray kaw journaliste yi pour waxtaan ak ñoom leeral ci dossier élection département de Pikine ñu am beaucoup de plaisir tey di dalal fii bépp suñu nataangoo li li naan l'opposition li ci ëpp solo tey accepté nañu suñu invitation ñu ànd ak ñun moo tax bu ko maître Serigne mu ne waxee du guddal ci wax damay jël rek ay kàddu pour dalal suñuy gan ñu fi fekk tey suñuy gan ñu nekk d'abord waa li ñuy wax les activistes activistes yi nekk ñi nga xam ne bokkuñu ci benn langue politique dañuy xool li nga xam ni jàpp nañu lii mooy dëgg lii mooy yoon ñu ànd ak ña koy xeex di ko xeex wala di ko xeexal seen bopp moo tax suñu bii Malick Sagna di di sëñ di jiite collectif ñoo kii di Clédor Sène mi ngi ci yoon di ñëw kii di euh, Assane Diouf dëkk Jidda Caaroy Kaw toog ci biir salle bi donc ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu ñëw fi toogal ñëpp ñi nga xam ne ñooy activistes yi ñoo nekk la société civile dalal tamit jàmm fii ci biir ci Dakaré Kaw ci biir département de Pikine donc sunu naataango bu coalition Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi ñu envoyé délégation autour de Ousmane Sonko président maa ngi lay di la ziare bu baax a baax avec Déthié Déthié Fall donc ma félicité ko ci rôle bi am solo bi nga xam ni joué na ko ci wax bu dëgg yàlla organisation élection yi ci biir Yewwi Askan Wi kii di sunu frère donc le maire Khalifa Sall ak le frère Djibril Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaare bu baax a baax ñuy délégation Yewwi Askan Wi nga xam ne ñoom ñoo leen fi teewal donc wàllu askan wi également envoyé fi délégation boo xam ni ko ko jiite mooy le président Mamadou Lamine Diallo di président Tekki di coordonnateur électoral bu yeew bu euh, coalition wàllu ak mon frère Mayoro Faye donc du secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais ay ma terminé sur mon grand frère Doudou Wade mi toog sama wet ñëw fi également au nom de la coalition Wade donc may beral nuyoo maître El Moudou li nga xam ne tey moo fi toogal le collectif des quatre avocats nga xam ne moom la coalition wallu jiital pour ñu ñoom la mandaté pour ñu défendre donc dossier bi au niveau de la cour d'appel may annoncé ne dossier boobu déposé nañ ko démb mu nekk dossier boo xam ni El Modou dina ci ñëw peut-être yenn détails dañoo jóge ci élection de ville ci département de Pikine ñun ñu jot les PV qui essence euh, euh, pratiquement de l'ensemble des bureaux de vote def suñuy calcul sur la base de ces PV yu joge ci bureau de vote gis ni rawee nañu coalition Benno Bokk Yaakaar plus de deux mille quarante cinq voix ñu ni gañe nañu l'affaire est pliée parce que résultat yi bañ koy wax ci procès verbaux yi joge ci bureau de vote yi lañ ko basé dans le même temps ñu am ñi ñuy bàyyi xel di bàyyi nopp ci les travaux de la commission départementale de recensement des votes ñuy avancé ñuy gis ni au fur et à mesure que ñoom ñu ngi dépouiller avance de deux mille quarante cinq voix bi ñu amoon mi ngi fondre di fondre di fondre ba à la fin ñu gis le président de la commission de recensement des votes proclamer une victoire surprenante de Benno Bokk Yaakaar mais yàlla may ñu ñu suivroon travaux yi de manière très très minutieuse et c'est l'occasion donc ñu féliciter suñu représentant ya fa nekkoon c'est aussi l'occasion ñu féliciter les douze candidats que nous avions dans les douze communes du département de Pikine parce que dossier bi du dossier Cheikh Dieng kese dossier wu d'abord le wàllu du département de Pikine la xañ na dañoo jiital Cheikh Dieng mais douze commune yi nga xam ne ñu ngi ci biir de Pikine la cay Cheikh Dieng moo leen ci donc ñu bëgg féliciter leen ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci campagne électorale bi mais également dossier bi mu commencé ba léegi ñu ne ñu du Cheikh Dieng du sa du sa combat yow rek ku mel ni Mame Diarra Fam ku mel ni honorable euh, Marie Sow Ndiaye ku mel ni euh, Djibi Sow mi ku mel ni euh, le frère Alioune Sy bu Dalifort taxawaay biñ ci am man sax amul ma ko kon c'est l'occasion ñu féliciter toutes les douze communes du département de Pikine ci taxawaay man ak ñoom ñoo ànd tey di leen dalal fii ci sujet wu coalition wàllu bu tuddee Thiaré donc biñ biñ gisee la coalition euh, le président de la commission départementale de recensement des votes proclamé ay résultats à la surprise générale mu jox coalition Benno Bokk Yaakaar victoire ñu ne ko dinañ leen bëgg lan moo tax ñu dellu ci procès verbaux yi gis si ay irrégularité yu bare bare ci travaux de la commission benn ñu gis ni dafa am un trafic des voies yu doon jóge ci commission départementale de recensement de voies muy muy lu garaaw président man ni dans telle commune dans tel centre de vote dans tel bureau de vote coalition wàllu am na fa dix voix alors que coalition wàllu 13 voix la fa coalition Benno Bokk Yaakaar mu am na fa quinze voix alors coalition Benno Bokk Yaakaar 8 voix la fa loolu dañ ko def dans plusieurs et plusieurs bureaux de vote parce que li dul li dul am souvent dañoo jël le soin moom bi muy proclamer résultat yi en commission ñu doon jël note la mu doon wax comparé la mu wax ak la nekk ci euh, euh, ci PV jóge ci bureau yi gis ni donc dafa am un trafic président commission bi def foofu li ñuy wax dafa am dafa dafa yomb ndax PV ñun yi ñuy sukkandiku ñun mi ngi en notre position donc ñu jëlee ko ci bureau de vote gis également beneen façon trafic boo xam ni def nañ ko ci organisation élection yi ñëpp a xam ni coalition Yewwi Askan Wi nekkul woon candidat au scrutin de ville ñëpp a xam ni IPD nekkul woon candidat au au scrutin de ville mu am ay bulletin de vote yoo xam ni ñu doon organiser vote bi coalition Yewwi Askan Wi coalition IPD ak yeneen coalition yu nekkul candidat au scrutin de la ville dañoo dugal seeni bulletin dans le scrutin ci centre de vote yooyu ci bureau de vote yooyu ba ñooñu am ay score tey buñ doon nat coalition Yewwi Askan Wi li mu am ci sourtel de ville bu leen ko waxoon da ngeen ut seen jënd bulletin Yewwi lu muy def ci scrutin de ville dans la dans le département de Pikine alors ñoom ñoo leen tere ñu nekk candidat ci le scrutin de ville de am également beneen façon njaaj bu ñu gis mooy bu ñuy dépouiller bulletin dañu gis ni dañuy octroyer ay corps dañuy liste ñi nga xam ne ñoo compétir dans dans ce bureau de vote ñaar wala ñetti coalition yi nga xam ne elles sont régulièrement en compétition yi saa ñu tëb coalition euh, wàllu yi saa yi ñu tëb coalition Benno Bokk Yaakaar mais amul benn bureau de vote boo xam ni dañ fa tëb coalition Benno Bokk Yaakaar mu am score ànd ak yeneen ñaari coalition yeneen ñetti coalition ya ca des ñu tëb leen ci euh, score yi ñuy joxe xanaa même bu ñu fa amoon score zéro da ngay bind coalition Yewwi am na zéro da ngay bind coalition Wallu am na zéro nga bindal ko zéro mu am également beneen façon njuuj njaaj bu ñu gis surtout nag mbaaw c'est vrai que on a tardé à rassembler l'ensemble des PV parce que y avait une situation particulière à Mbao gouvernement bi administration territoriale les forces de police et de gendarmerie dañoo mettre la pression maximale sur suñu candidat ba nekkoon foofu ci période élection yëpp di ko bundu xatal ex bu ci këram sànni fa ay grenades lacrymogènes pour empêcher le maire Abdoulaye Obama mu mener une campagne mu mener un jour de vote tranquille malgré tout ça et ça qui le plus important ñun biñ defee le total des scores yi nga xam ne moom la coalition wàllu enregistré dans l'ensemble des bureaux de vote du département ñu gis ni ñun ñoo raw au score la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ni mais c'est extraordinaire que malgré toutes ces manipulations yi ñu gis ñu raw raw au score la coalition Benno Bokk Yaakaar la commission nationale de recensement donc di euh, di euh, proclamer Benno bok Yaakaar euh, la victoire et c'est par rapport à ça que nous avons vraiment donc demandé à nos avocats et j'en profite pour féliciter vraiment la coalition Wallu Askan Wi mu constituer une un de quatre avocats pour porter l'affaire devant la justice mu nekk donc un combat judiciaire boo xam ni dafay tàmbali dafay tàmbali parce que loi un mois la may la cour d'appel de Dakar pour mu prononcer wu sur ce recours juridique mais ñu ni xam nañ également que président Macky Sall moom moo nekk à la base de toutes ces manipulations de la commission départementale de recensement des votes et que de ce point de vue ça reste un combat éminemment politique moo tax tey ñu kontaan am satisfaction bi ñu gisee opposition bi yëpp dans son ensemble au regard de pièces justificatives yi ñu teg ci seen loxo ñun ñu lii Cheikh Dieng nekkatul sa combat combat wu Yewwi Askan Wi la combat wu euh, tous les activistes la combat wu opposition dans son ensemble la combat wu coalition euh, wallu askan wi la moom moo waral seen teewaay fi ñun ñëpp tey ma leen ci sante leen ci gërëm bu baax a baax